1, 2, 3, 1, 2, 3. mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak baneex di dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy e, ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kuréel bii di e, safara hépatite Sénégal bokk na ci Fatou Ngirane nekk président bi waaye ca beneen fànn bi ñu fas yéene ci amal waxtaan bu yaatu ak kii di vice président bu kuréel bu ni wuyoo si turu Medoune Sène laata lool nag sant leen gërëm leen vraiment ci nangu bi nga xamante ne nangu ngeen ko uyu ci suñu invitation bile te tamit di leen wax dala leen jàmm ci rajo mi FM soxna Fatou Ngirane. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di kontaan bu baax ci li nga xamante ne mooy teewlu bi ngeen teewlu émission bi euh, Fatou di la remercier bu baax di remercier Rewmi FM ci opportunité bi nga askan bi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy euh, sant ko gërëm ko moom Fatou Ngirane vice président bi nag la ñu daal di jox micro euh, mu nuyoo laata ñuy xuus ci émission bi Medoune seen dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. salaamaaleykum wa rahmatulah Fatou ñu ngi leen di sant di gërëm aussi Rewmi FM ci taxaw bi ngeen taxaw ci ñun pour ñëw ci ñun bañ mun a xam saafara hépatique lan lay dund. Mhm. d' accord euh, commencé que waxtaan bi rek euh, daal di koy doore ci lépp lu jëm ci origine bi soxal euh, association bi tey bëggoon xam rek soxna Fatou Nguirane kañ ngeen taxawal kuréel bu ni mel ak lan mooy expliquer ngeen dog woon ne di ngeen taxaw association bi ngir jàppale bépp doomu aadama boo xamante ne dafa am jàngoro bi di hépatite. waaw faatu association bi li nga xamante ne moo taxoon ñu créé ko mooy euh, dafa amoon ñu nga xam ne ku mel ni euh, ancien président Ibrahima Gueye actuellement président d'honneur nga xam ne téye na association bi diiru fukki at ah, ñoom à l'origine ñoo ko créé woon ak programme national de lutte contre les hépatites ak ku ñuy wax professeur Lamine Diouf euh, donc dañu gisoon ne euh, feebar bi dafa am ñum doon dal te bu leen di dal duñ ko yëg duñ xam dañuy toog rek ba feebar bi togg si ñoom def ay loraange ñu koy doore a ci kaw loolu ci la ñu taxawal association bi pour yee askan bi mm-hmm. Euh, tey ji ginnaaw bi loolu weeso rek ñu bëggoon xam naka la ñuy def euh, ba nekk membre euh, ci kuréel bi. waaw association bi nag comme association yëpp rek pour bokk ci elle est libre et elle est gratuite dara loo xam ne da nga koy fay pour mën a bokk ci association bi. Mhm. boo ñëwee rek da ngay bokk da ngay jënd carte de membre mhm. parce que. boo jëndee carte de membre euh, mille francs ngay joxe euh, boo bu at bi jeexee bu bëggee da nga bëgg a renouveler waat sa participation ci kii bi nga joxe waat beneen mille francs maanaam at bu jot rek mille francs ngay jëndee carte de membre euh, am nañu nag ay cotisation yoo xam ne ñu ngi koy def mensuellement mais nekkul loo xamante ne dañ naan ku ko joxewul rek doo bokk ci association bi Mm-hmm. Euh, tey jii wax nga ko yéenay dem euh, ci seen fonds propre euh, ngir certainement mën a jàppale ñu bëri ñu am jàngoro boobu tey bëggoon xam rek ndax am ngeen ñu leen di jàppale lu ci mel ni peut-être ay ONG wala ay mécènes partenariat financier bi tey association bi di Saafara Hépatite Sénégal ndax am na assez de partenaires yu ko na a booster jàppale ko. waaw Fatou nag ñun ci wàllu partenariat euh, sur le plan financier euh, vraiment daanaka boo koy seet euh, bëriwul amoon nañu nag partenariat ak li nga xamante ne mooy fondation Sonatel ak ESP ah amoon amoon nañ partenariat aussi Euh, ak li nga xamante ne mooy Corps Africa mais xam nga depuis Covid bi bi mu ñëwee ak léegi activité yu bëri dafa taxaw euh, de ce fait donc yu bëri donc euh, daanike yëngatu wuñu ci mais am nañu partenariat nag bu bu am solo boo xamante ne ak ki nga xamante ne moom mooy projet CNB hmm, donc projet CNB ku ñuy wax donc professeur Gilles bu Suisse moom moom moo ñu ciy jàppale donc professeur Moussa Seydi bi nga xamante ne moom moo yore maladie infectieuse bu hôpital Fann moom moo ñu moo jiite loolu eh, ci biir loolu daf ñuy mettre toujours en rapport ak ki nga xamante ne moom mooy docteur tin ah ñoom docteur Adria ak seen staff bi ah secrétaire secrétaire am Amady mu nekk ko disponible ñoom ñëpp eh, vraiment ñu ngi jàppale association bi donc faatu ci biir projet CNB boobu patients yi dañuy dem ñu jël leen gratuitement hmm? dinañ leen defal charge virale dinañ leen defal échographie prise en charge yi ci lépp luy bilan boo xamante ne ko am hépatite dina ko am dinañ dinañ la ko defal gratuitement eh, boole si boo paree di ñibbi dinañ la may sax paas boo xam moo lay delloo fi nga xam ne mooy sa kër. Euh, monsieur Medoune ñu bëgg la jël rek ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro bii di hépatite mu mel ni askan wi ñu ci bëri dañ ko umpale yéen tamit seen association bi mu mel ni <coughs> euh, bu ñu demul rek ci bëccëg bi du ngeen faxatal di am ay activité tey en dehors de la journée mondiale bi nga xamante ne da ngeen koy célébrer ndax euh, gisu leen ne war ngeen gën a mettre l'accent sur la communication maanaam di def ay porte à porte def ay atelier ay sensibilisation ngir wi gën a xam euh, jàngoro bi di hépatite. merci Fatou li nga wax am na solo ñun euh, association bi li mu gën a kii sax pour sensibiliser mhm. la population mhm. parce qu'on s'est rendu compte que ñi xam hépatique bariwul te hépatique dafa nekk feebar boo xam ne dafa sournoise mhm. mun na nekk ci sa foie ah. pendant dix vingt ans doo ko yëg ce qui fekk su demee ba feeñal boppam ça veut dire que c'est trop mm-hmm. moo tax ñun suñu sensibilisation lu mu ëpp mooy pour inciter les gens pour ñu dem dépister wu. Mm-hmm. parce que une fois que nga dépister wu su fekkee ne xam nga sa statut su fekkee de sa positif dinañ la euh, suivre def loola ay bilan mettre la sous médicament soit mu nekk biir wala mu nekk interféron mhm. léegi su fekkee ne yow def nga sa dépistage mu mu négatif mhm. léegi am nga possibilité def vaccin bi mhm. vaccin bi une fois que nga def ko vraiment daf lay kii daf lay aar pour toute la vie moo tax léegi dañ former benn groupe WhatsApp à travers ce groupe la si la ñu weccee ku si nekk à ton niveau daal si ngay jéem a kii on essaye quelque fois sax di def ay thèmes de réflexion yoo xam ne dañ koy partager ku si nekk di wax li ko xalaat at euh, ni ñu def daal ba mun ci génn Mhm. justement euh, monsieur Sène par rapport ak euh, dépistage bi ndax sensibilisation bi yomb na lépp lu tax ma koy poser mooy am na ñu bëri ñoo xamante ne bu ñu waxee lépp lu jëm ci wàllum vaccination wala dépistage dañu am benn psychose parce que dañuy xalaat ne bu ñu la dépister en dehors de hépatite bi mun nañ la déceler yeneen pathologie mhm. tey ndax seen euh, sensibilisation par rapport ak dépistage boobu au niveau de l'association ndax dafay fluide est-ce que yomb na tout ñu ngi jéem a góorgóorlu parce que comme ni ma la ko waxee ñi xam affaire yi hépatite bariwul te information biñ ci am aussi c'est quelquefois biaisé mm parce que souvent dañ la wax soo amee hépatique après dangay am euh, cirrhose après am euh, cancer du fois de mhm. xam nga ce qui fait que léegi suñ la waxee ne yow am nga hépatique rek yow tu penses que c'est fini parce que niñ la wax dafa am luñ ci tëb mhm. parce que entre euh, bi nga xamee sa sa at ngay am cirrhose su fekkee ne yow xam nga sa statut nga commencé jël sa médicament mm-hmm. day nelaw la virus bi ce qui du actif du la mën a defal dara ce qui doo mën a développer maladie bay yegg ci cancer. Mm-hmm. ce qui ñun ci loolu la ñu gën a insister pour que nit ñi di dépister wu pour xam seen statut mm-hmm. afin de pouvoir euh, faciliter la prise en charge. <coughs> waaw Fatou foofu bëggoon naa ndax sànq euh, da nga tonton Medoune dafa am lu mu wax lu am solo euh, groupe bi nga xamante ne dañ ko créer muy groupe WhatsApp bi dafay permettre euh, ñi nga xamante ne dañu am hépatite te jaaxle loolu te médecin yi amuñu temps communique ak ñoom mm. suñu adhéré si groupe bi day permettre ku ci nekk li ngay yëg ak li nga xam ne bëgg nga ko waxtaanee da koy da nga koy soumettre si groupe bi léeg-léeg sa duñu mën a jot médecin bi mm. pour mu wax leen li nga xamante ne moom mooy ñoom li ñi xamante ne dañuy nekk ay relais dañuy jotante ak médecin yi dañuy daal di jël laaj yooyu jox ko médecin yi bu ko defee médecin yi indi seen tontu ñu mun ko dugal ci panel bi kenn ku ci nekk xam ban comportement ngay am par rapport ak euh, si sa e donc aussi beneen bi ci des mooy ñu ñu ngi def des actions de sensibilisation mhm. bokk na ci ñu ngi dem ci ci chaîne de télévision ak rajo di wax mais bokk na ci aussi ñu ngi dem di gis malaat yi ñoom am na ci ñoo xamante ne individuellement dañuy dem ba ci ñoom togg ak ñoom waxtaan ak ñoom delloosiwaat leen parce que am na ci ñenn ñoo xam dañuy commencé mm, di dem hôpital ba mu neex leen nu arrêté daal di dem commencé jël garabu wolof yi. Mm-hmm. ñooñu da nga ciy gis ñoo xam ne ñu plus ñu ngi naan garabu wolof yi plus ñu ngi rey seen bopp donc ci biir loolu. ñu ngi rey seen bopp sans le savoir. waaw parce que garabu wolof yi day am foo xamante ne bu fa tollee vraiment foie bi moom supporté wu ko. Mm-hmm. léegi bu ko defee ñooñu aussi dañ leen di jege di waxtaan ak ñoom ba ñu xam nan la ñuy moytuwee parce que am na yenn xobi yoo xam ne xëy na mën na faj mm. parce que euh, kenn mënul wax ne du faj parce que loolu ku ko wax itamit man mënu ma ci wax lu bare parce que sama xam-xam soriwu ci loolu mais xam nañu ne yenn garab yi nga xam ne dañ koy jël jox ko nit ki naan la bu lu mu gën a forox gën a baax muy bokk na ci li nga xam ne moo gën a aay ci foie parce que euh, lépp loo xamante ne dafay forox wala mu décomposé wala mu am benn melokaan bi loolu fois supporté wu ko mm-hmm. je parle sous le contrôle des médecins ñoom xam nañu ne bëgguñu sax ku nga xam ne dafa am hépatite di jege li nga xamante ne moom mooy garabu wolof yi continuer suñu ay sensibilisation ñu ngi continuer di ñaax askan bi ñuy continuer aussi di def dépistage bi euh, au niveau du programme national de lutte jot nañ fa toog def ak ñoom ay waxtaan ñu am ay proposition yu am solo yoo xamante ne def nañ ñu ko parce que ñoom proposé nañ ñu à ce que képp koo xam ne yaa ngi ñëw di jënd si garab ñu fexe ba waxtaan ak yow nga xam li nga xamante ne mooy existence association bi ba lépp loo xamante ne moom mooy sa ay plainte nga mun ko dugal si biir panel bi ñu mun cee dox bu baax. Euh, ba léegi ci li nga xamante ne moom moo di association bi eh, bëggoon xam rek ndax eh, seen bànqaas yi law na eh, ba au niveau des des des régions ndax ku wax association xam naa ne ñi ngeen di mm, regrouper ci ci lim bëri na bëggoon xam ndax am ngeen ay structure ñoo xamante ne ñoo leen représenter par exemple Diourbel Saint-Louis c'est des exemples que je donne juste mm-hmm. waaw xam nga association bi xëy na naam dooleem demeewul noonu mais daanañu dem si di def ay ay ay ay caravane ay ñooro ah daañu dem Ngathie daanañu dem Kaolack ah Fatick côté boobu nga xam ne bassin arachidier bi nga xam ne hépatite bi dafa bëri woon dem nañ fa ba daanaka léegi boo koy xool ci biir gox yooyu am na ci ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi commencé di yëngatu si wàllu hépatite bi. Mhm. donc loolu moom xam naa ne liggéey la boo xamante ne dinañ ci gën a jàppaat encore parce que euh, programme national de lutte contre les hépatites euh, waxtaan nañ si ak ki nga xam ne mooy professeur Aminata Sall Diallo wax na ne ne ñu ngi dem ci gox yi di def ay formation formation pour initier nit ñi ñu xam d' abord ce que c' est que la maladie mhm. xam aussi garab yi buñ leen ko joxee naka la ñuy defee distribution yi naka la ñuy jàppee ki nga xamante ne moom moo am hépatite bi toppatoo ko ba du dem euh, vers la phase cancéreuse euh, justement monsieur Sène par rapport ak euh, seen kuréel yi ngeen am ci eh, ci ci ci à l' intérieur du pays tey eh, bu ngeen doon def benn genre comparaison entre peut-être Dakar ak ñeneen ñi est-ce que ils sont plutôt favorable euh, par rapport ak euh, sensibilisation bi seen retour justement euh, ci tournée yi ngeen di farataal di def boo ñu ko doon defal benn petite évaluation wala bilan lan lañ ci mën a retenir concernant l'intérieur je ne peux pas vraiment m'y avancer parce que aw aw aw ma kii ci relais yi nekk au niveau de intérieur mm-hmm. mais sur le plan euh, c'est-à-dire au niveau de Dakar je sais qu'on est très actif waaw faatu foofu moom euh, li nga xamante ne moom mooy souci majeur bi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mooy ñenn ñi dañ lay wax ne la ah feebar boo nga xamante ne soo ko jëlee nga am ko ñu wax la la da nga ko am ah léegi feebar bi léegi day daal di des ci sa xel bi te li nga xamante ne mooy coût bi pour prise en charge bi cher na cher goo nga xam ne da si dégg koo xam ne da lay wax ne man je ba bañ ko xam mu ne que léegi boo ko xamulee ba feebar bi loolu la mu ne bu loola bu boobaa bu deeñee yóbbu ma mais toog di xam feebar boo xamante ne pour nga mën ko faju dafa cher ngay toog di ko misère di ko xalaat loolu dafa métti donc ñun yooyu problème aussi dañ koy jànkonteel mm-hmm. waaw vraiment da nga ciy ngay ñëw mu ne la boo ko commencé wax hépatite rek mu ne la yi mii ñun de ñun yàlla nañ ci yàlla musal feebar boobu daal dégg nañu ñi nga xamante ne ñooy njaaloo ak di dox ji naka sudul noonu ñoo koy am mhm. da ngay gis ñoom ni ñuy daal di commencé stigmatiser feebar bi mhm. parce que dañu jàpp ne feebaru la alors que hépatite naam am na benn pourcentage bu ndaw boo xamante ne ki nga xamante ne yaramam virus bi commencé na togg si yaramam mun na jàll ci li nga xamante ne moom mooy liquide biologique yi pour mun koo pour mun koo lii pour pour pour mun na ko wàll ki nga xamante ne protégé wul rap deful rapport protégé mais au delà de pourcentage bu ndaw boobu noonu hépatite bi ñu ngi koy wàllante li si ëpp fii Sénégal booy seet presque à quatre vingt dix pour cent yaay bi nga xamante ne moom moo am virus hépatite bi moo koy wàll doomam. Mm-hmm. Hmm? donc Sénégal ak Europe bokkuñu parce que Europe ñoom très tôt dañoo dem dem def ji li nga xamante ne mooy vaccination à la naissance alors que ñun fii 2016 dañ ko commencé di def donc ñi nga xamante ne jiitu woon nañu ñooñu il faut que ñu dem def ji dépistage bi parce que ñàkk ko seen wéyjur yi amoon naka ka leen ka te xamuñu ko. Euh, monsieur Sène justement par rapport ak euh, li faatu wax ñu rebondir rek ci stigmatisation bi ba xam euh, ci seen association bi mus ngeen dund koo xamante ne dafay ñëw. di wax que au sein de sa propre famille dañ koy bundu xatal wala dañ koy def genre mais sa euh, méchanceté benn petite anecdote justement si eh, su fekkee am nga ko. sur ce plan là aw ma ko mais mun naa le jox ñaari anecdote yoo xam ne pour vous dire ni gars yi gisee feebar bi. parce que kenn ki c'est un étudiant. Mm-hmm. Euh, ci euh, ci don de sang lañ ko waxee ne dafa am hépatique. don de sang. Mm-hmm. mu bëgg bàyyi formation moom au niveau de de de l'université mm -hmm. soit disant que donc soxlaatul mu am projet c'est fini pour lui. voilà keneen ki c'est un professeur d'anglais mhm. mu dem moom it ci circonstance yu kii euh, mu def analise gis ne il était porteur chronique mu ne day bàyyi mhm. il a fallu ma toog ak ñoom expliquer leen ne man hépatique bi je l'ai eu depuis 2003. Mm te gis nga ba fi ma nekk ni amul dara lu mun a wane ne maa ngi hépatique bi mhm. parce que prise en dafa am une fois que nga xam yow sa statut léegi da ngay jël ay garab te garab yi ngay jël day nelawloo virus bi ce qui du du du facilité feebar bi di installé wu quoi mhm. ah, léegi si lañ dellu mhm. léegi ñu ngi ci kii bi saafara mais di jël garab comme il le faut mm-hmm. en ayant nag une vie euh, normale comme tout le monde mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw stigmatisation bi bon man nag wax dëgg neex yàlla euh, damay gis ñoo xamante ne sax ci biir group bi da ngay waxtaan ak ñoom da ngay dugal benn thème war a wax dañ naan la ñun daal madame jéggal ñu ko ñun mënuñu wax ci biir groupe bi parce que suñu waxee ni ñi dañuy transférer vocaux yi te am na ci ñoo xamante ne bu ñu waxee rek dinañ xàmmee suñu baat mm-hmm. ah donc ñooñu aussi bu ñuy dee def lu mel noonu rek parce que dañu ñàkk xam mm-hmm. parce que hépatite du feebaru gàcce du feebar boo xam nit ki boo ko amee da nga war a rus ñu xam ko même VIH bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy am mais du feebaru gàcce parce que feebar la boo xamante ne yàlla moo koy teg doomu aadama ah te léegi ñoom aussi am nañu léegi possibilité di jël seen ARV yi normalement te ku ci respecté sa prise en charge jël say ARV sa sa sa kii euh, euh, euh, kii indétectable mënoo ko sax wàll nit ki keneen ki doo ko wàlleeti mm-hmm. ñoom donc ñu ngi dund seen dund facilement il faut faudrait que les gens arrêtent avec cette forme de stigmatisation bu nga xam te ne teguñu ko fenn mm-hmm. mais avant Fatou dama bëggoon a indi une petite benn rectificatif mm-hmm. c'est en rapport ak vaccination bi nga xamante ne doon ko commencé fii Sénégal parce que ñu ngi ko commencé fii en deux mille mais bu ñu ko commencé en deux Dakar Thiès la ñu jëloon ensuite au bout de cinq ans ñu commencé ko euh, élargir ci li nga xamante ne moom mooy yeneen région yi mm-hmm. voilà donc vaccination à la naissance bi nga xam ne léegi automatiquement xale juddu rek ñu vacciné la boobu la ñu tàmbali en 2016. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, yéen a ngi ciy gis ay ay ay jéego wàññi na li mu euh, doomu aadama yi am hépatite. mais bu baax a baax parce que wax naa la ni la hépatite bi fii Sénégal. quatre-vingt-dix pour cent yi seen yaay ñoo leen koy wàll mhm. donc léegi ñoom dañu dem euh, sage-femme yi ak ñi nga xam te ñu ngi liggéey ci santé yi soo nee dama nekk en état rek automatiquement bilan bi ñu lay njëkk defal mooy dañ lay seetal drépanocytose seetal la VIH seetal la hépatite mhm. donc yooyu yëpp suñ la ko seetalee buñ gisee ne yow da nga am hépatite dañ lay préparer en conséquence d'abord avant ñu lay préparer en conséquence pour bébé bi dañuy xool xam est-ce que yow sa yaram instant bii nii réplication dafa da nga war jël garab avant ngay accoucher ak yooyu yëpp waaye dinañu xool aussi bu fekkee loolu yëpp amul dinañ la prévenir ba nga xamante ne doom ji su ne salaamaaleykum rek dañ koy vacciner mm-hmm. te buñ ko vacciner wee dootu ko amati mm-hmm. donc ça veut dire très évident depuis ñu commencé euh, loolu ba léegi vraiment kii bi chuté na vraiment macha allah. Euh, monsieur Sène euh, ñëw ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro bi rek par rapport ak hépatite wax nga ko sànq amoo ay peut-être ñoo xamante ne ci association bi la mais joxe nga fi ñaari exemple yoo xamante ne kenn ki c'était un c'était un étudiant kenn ki tamit c'était un professeur bëggoon xam rek yow ci sa wàll nga revenir un tout petit si sa jaar diar par rapport ak hépatite bi lan moo la incité wala lan moo dem ba nga xam ne yow hépatite nga am comment est-ce que ça s'est manifesté suma cas c'est un cas spécifique parce que dama daan def entre le mois de juillet ba septembre dinaa daan am palu palu chronique sax juillet waaw dinaa ko am au minimum trois fois léegi comme yàlla dafa def ma am euh, ci suma famille euh, quelqu'un qui est du corps médical mm-hmm. moo ne ma tonton est-ce que yow mosoo am jaunisse ma ne ko non non non man mosuma am jaunisse mu ne ma non c'est pas toutes les jaunisses qui font qui développe quoi la couleur jaune de de l'œil waaw mm. léegi tu sais ce qu'on va faire je vais te mettre en rapport avec un promotionnel mm-hmm. mu mettre ma en rapport avec le professeur Lamine Diouf bi ma demee ñu def euh, suñ prélèvement ci suma mhm. foie mhm. envoyé ko extérieur bi ñu ñëwee ils ont eu comme résultat que dama am euh, kii chronique euh, hépatique chronique mhm. aussitôt vraiment j'avais le moral au talon mais heureusement moom il m'a repris ci saa si m'a fait comprendre que dès l'instant que man j'ai découvert le c'est déjà une chance parce que une fois que nga découvrir ko mun nañ le mun nañ la suivre ba ba ngay war a jël garab soo waree jël garab nga jël garab. Mm-hmm. ce qui fait mun nga vivre ak moom cent ans sax s'il y a lieu mm-hmm. su fekkee ne prise en charge bi normal la. Mm-hmm. ce qui fait il m'a ramené ne ma léegi soxlaagul ngay jël garab mais tous les six mois dañu def kii bilan. effectivement tous les six mois ma def bilan au début dama amoon anticorps yoo xam ne daf doon réagir ce qui mhm. fait que suma taux kii daf doon wàññeeku il a fallu que pendant un an deux ans mu war a dem Japon mu demandé ma est-ce que mun na yóbbu suma dossier parce que suma cas dafa nekk cas bu xaw kii parce que suma organisme day day réagir quoi par rapport au virus mhm. ma ne ko amul benn problème mu yóbbu suma kii. dossier ok léegi ça c' en quatre vingt dix sept quatre vingt dix huit ba deux mille trois laa commencé di jël kii. Mhm. garab 98 donc 2003. ok donc 98 ba 2003 jëluma dara dama doon kii rek comment dirais-je encore. suivre tous les six mois. Mhm. en 2003 bi ma xoolee nag mu ne ma léegi il faut que ngay jël kii may jël interféron là j'en profite vraiment pour remercier la structure dans laquelle je travaillais mmh. parce que c'est une structure qui me prenait à pour cent loolu wóor na ma ne su fekkee ne amul woon du ma fi toll ba fi mu nekk parce que c'était un médicament que je prenais une fois par décade et ça me revenait à cent cinquante neuf mille francs l'injection mmh. ok ma koy jël ba 2008 ma soog a bàyyi kooku commencé interféron. Mm-hmm. non commencé ténofovir bi ma jëlee ténofovir ba léegi daal macha allah. Mm-hmm. là aussi je vais en profiter pour remercier un peu le programme. parce que au début interféron bi je l'achetais à trois cent vingt cinq mille francs le mois. Mm-hmm. toujours prise en charge par la structure. Mmh. jusqu'en bon jusqu'à 2009. si lañ commencé avec le programme ñu ñu koy jaay à 5000 francs. à combien. mille francs à la place de cinq vraiment bon macha allah macha allah. et justement justement sonk monsieur Sène wax nga ne ko euh, bi ñu la waxee da nga am euh, jàngoro bi di hépatite euh, loolu diggante nit ak la am na benn peut-être je dirais pas choc mais am na benn ressenti boo boo boo boo jot a par rapport ak sa sa environnement comment est-ce que nañ ko accueillir ak naka vivre pour surmonter ko bu fekkee surmonter et le mot bien sûr. foofu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a Euh, par rapport à mon environnement immédiat, il n'y a pas eu de problème. J'en discutais avec la famille, mmh. j'en discutais aussi avec ma femme et ma fille. musuma am benn problème te wàlluma ko kenn suma kër wàlluma ko suma jabar wàlluma ko suma doom ba léegi on vit une vie normale ok donc y pas de problème. Euh, d'accord ñu ñëw rek euh, peut-être euh, ci Fatou Nguirane moom mu wax ñu aussi comment est-ce que euh, comme moom mooy présidente association Saafara Hépatite Sénégal ban moment le am jàngoro boobu ak itamit naka la ko vivre eh, balaa ñuy xuus jëm ci wàllum prise en charge bi ak traitement bi ci anam bu gën a yaatu <laughs> Fatou waaw foofu moom euh, wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee rek xam nga feebaru hépatite moom ku ñu ne am nga ko rek dina am na mu def ci yow euh, donc man 2003 euh, dama doon yóbbu sama sama doom. Euh, vaccination donc foofu ñun à Thiès sœurs yi buñ lay vacciner dañuy defaale benn genre causerie balaa ñuy démarrer vaccination pour wax yaaye lan moo tax ñuy indi xale pour ñu vacciner leen ci biir loolu nag laa ka laaj lii ku ko bëgg a xam na ndax am nga ko nan ngay def ak affaire yooyu ci lañ ñema lii pour nga xam ko il faut nga dem defi ci test bi mhm. ci loolu laa jóge Thiès man ñëw principal def si test bi bi ma defee test bi aussi biñ ma nee am nga ko vraiment dafa meloon ni dañu sëpp sama bopp ci ci suuf ak samay tànk. Mm-hmm. parce que tiitoon naa jaaxle woon naa parce que communication bi période boobu moo doon ne ko am hépatite B rek da ngay cancer da ngay dee. voilà donc bon booba commencé woon naa sa sama grande sœur bi commencé woon naa daanaka di ko dénkaane sama njaboot parce que pour man damay dee. Mm-hmm. mais nag di si gërëm ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Gueye tonton Ibrahima Gueye euh, l'ancien président que moom aussi euh, xëy na man naam teelu ma xam association bi ndax 2005 laa commencé samay suivi au niveau de l'hôpital principal dan ma doon wax jëlal rendez-vous nga six mois nga ñëwaat dama doon dem di ñëw di dem di ñëw rek ah man nag ma bopp parce que heure bu ñu waxee demal ñëw dama doon dem di ñëw mm-hmm. euh, ba finalement euh, ku ñuy wax soxna Awa Ndiaye ñu bokkoon benn Euh, euh, élection wala présidentielle ñu bokkoon euh, si si ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekkoon si bureau yi léegi mu waxtaan ak man mm-hmm. bi ñu doogee di waxtaan ci la ma wax existence association bi mm-hmm. donc si biir loolu ci laa ñëw man ci association bi euh, vraiment ku ñuy wax Ibrahima Gueye accueillir ñu jàppale ñu expliquer ñu wax ñu li en fait ce que c'est que l'hépatite ak tolluwaay bi ko nit ñi jox bu buñ ko amee nit ñi afolaweeg yooyu alors que nekk na loo xamante ne bu ci nit ki taxawee mën na ci mucc mais sinon man sincèrement biñ ma njëkkee wax ne ma am nga ko li ma jëkk xalaat mooy sama borom kër man dama ne kon moo ma ko waal parce que c'était la moment boobu loolu moo doon communication bi boobu moom mi ngi maali ma woo ko ni ko dama am hépatite. Mm-hmm. mu ne ma a ah, léegi nag a ah, hépatite de nee nañ day wàllaate feebaru sëy la ma ne ah, man de xam naa ne man dewuma dikkuma yow nag demal nga xool. Mm-hmm. léegi foofu mu def test bi Mali. bi mu defee Mali test bi ñu ko c'est négatif. Mm-hmm. bi mu waxee loolu man dama ko ne ñooñu seen ay ay baaxul. léegi yow il faut nga ñëwaat fii nga def ko. bi mu ñëwee mu jubali ji principal defaat ko. Mhm. léegi nag si biir loolu ñu ne ko amoo ko. Mhm. léegi nag man foofu man. affaire bi jaaxal na ma. jaxase na ma chaque jour nag ko jëfee man waxuma ko nit ñi mais man maa ngi jéem a xam man nan laa def ba am hépatite bi maa ngi koy wër waaw maa ngi wër fan laa jaar ba am hépatite bi donc yooyu aussi mu nekk vraiment yoo xam ne dafay des aussi si xelu nit ki. waa mais na dafay fekk na booba rek nit ki xamul ne ndekete hépatite bi fi ñu koy wàllantee dafa dafa bare lool. Mm-hmm. communication bi dafa des bu baax a baax. Mm-hmm. waaw bi des na parce que même ba ci ñi nga xamante ne dañuy ñëw di dugg si léeg-léeg si association bi ma damay nit dafa ma ciy woo mais bu may woo da ngay gis ne góor ponkal magum jëmm lay doon mais day jooy. day jooy comme xale bu ndaw ba yow mi nga xam ne da nga koy déglu sax sa yaram bi day daw. Mm-hmm. parce que ñoom liñ leen di liñ leen di gis koo xam ne danaan la madame man yàlla xam na ne li ñuy wax naan ay vagabondage ak yo madam man musuma mooy ci sama àdduna mm. magum jëmm laa di ko wax ci góor de dañ koy wax di jooy di la wan ne la ñoom xamuñu loolu mais pourtant am nañu hépatite bi te yooyu yëpp li koy waral rek mooy communication bi moo baaxul xamuñu li nga xamante ne mooy noonu la doomu aadama di amee affaire hépatite bi. Mm. Euh, bëggoon xam rek ndax euh, ci sa vie professionnelle euh, am na loo xamante ne gàllankooroon na ko ci moment yooyu bien waa man nag gis nga ci sama vie professionnelle taxut mu ko doon gàllankoor mais nag daanaa toll jamono yoo nga xamante ne wax dëgg neex yàlla. Mm-hmm. Euh, parce que boobu nag xamaguma woon existence parce que man association yi maa ngi ko xam en 2017. Mm-hmm. mais wax dëgg neex yàlla dama daan toog ba yàgg euh, sama directrice euh, madame Sam. maa ngi koy gërëm bu parce que tolloon naa jamono bu nga xamante ne su demaan def bilan ñëw dama ko daan wax madame il me reste peu de temps à vivre. Mm-hmm. parce que dama am hépatite bi te xam naa ne damay def ji cancer affaire yooyu da daan àndandoo ak man jooy. ndeysaan donc vraiment mu nekk loo xamante ne euh, benn moment xawoon na ma affecté tuuti mm-hmm. mais depuis ma adhéré si association bi di def ay échange xam exactement vraiment ce que c'est que la maladie mm-hmm. nan la nit ko mën a bi et puis mu ñu wan ñu ne ne am hépatite bi terewul nga dund vraiment vraiment très très longtemps man daal ci la sama xel bi dal donc si la commencé waat del ci waat à vraiment nekkaat vraiment ki ma nekkoon mm-hmm. mu mel ni association coalition bi am na benn rôle de soutien boo xamante ne daf koy apporter ñi nga xamante ne ñoo ci nekk bien sûr. waaw association bi vraiment dañuy def accompagnement. Mm-hmm. Ah, ah dañuy def vraiment euh, li nga xamante ne moom mooy. Euh, Euh, damay fàtte terme scientifique bi mais maanaam genre couns waaw waaw waaw genre counseling la ñuy def maanaam nit ki ñun dañ koy accompagner te sur le plan thérapeutique mais dañ koy accompagner sur le plan psychologique dañuy toog di waxtaan ak moom di échanger di ko jox ay exemple de patient su laajee patient yooyu noonu ñu demander numéro wu ñi nga xamante ne bañ leen fi jiitoo ñooñu départoon nañu ah ñu jox leen ñooñu seen ay contact ñu échanger ak ñoom ba ñu rassurer leen que ñu xam ne hépatite bi nekkul loo xamante ne lu nit war a mën a tiit tiit torop la ci ki nga xamante ne nag mi ngi def prise charge am mhm. euh, mbokku auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bii di SOS santé tey nag ma amaan mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ni nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci association boobu euh, di saafara hépatite Sénégal soxna Fatou ngiraan ak monsieur Medoune Sène ñëw rek ci doyen seen daal di koy tàmbale laaj lépp lu jëm ci wàllum prise en charge bi sànq yaa ngi doon brossé au début et lim la doon euh, côté cher na heureusement pour toi nga daal di am prise en charge mais ce ca euh, du le cas de de tous les Sénégalais peut-être exceptionnellement parlant la mais tey boo ñu doon wax rek lépp lu jëm ci wàllum prise en charge monsieur Medoune Sène euh, soxol jàngoro bi di hépatite B et naka nga gissi la politique de l'État allant dans ce sens bien sûr. la politique de l'État, ce que je remarque au niveau de l'État, c'est qu'on ne parle pas souvent de, de, de l'hépatique. Mm Et ça, c'est un peu désolant vu le, le taux de prévalence de, comment de, de l'hépatique mm -hmm. au mm-hmm. niveau de la population. Parce que le professeur euh, Diouf me disait que. C'est mm-hmm. professeur Lamine Diouf daf daan wax ne une personne sur trois sénégalais laalante na at virus bi. ce qui veut dire que virus bi vraiment mu ngi actif ci biir population mais sur le plan euh, programme étatique mhm. doo ko sentir mhm. alors que euh, li mu rëy insuffisance rénale sax du ko du du du que c'est important mhm. parce que li tax mu important mooy feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne su feeñalee boppam rek ça veut dire que c'est trop tard. te malheureusement médecins su fekkee ne dañu defloo nit analyse. duñ ci boole dépistage kii comment dirais-je encore hépatite. hépatite ce qui fait yow su fekkee ne yow amuloo nit comment dirais-je encore nit daal sensibiliser wu la ba nga dem yow defal ko sa bopp. Mhm. le risque et toujours la da koy traîner. mun na nekk comme li ma la wax. tey mhm. nekk sa foie pendant dix ans vingt ans doo ko yëg fekk moom mu ngi yàq bus bu symptômes yi commencé génn ça veut dire que moom yàq na lu bari. lu bari soo ñëwee ci médecin mooy li kii di wax ne euh, on ne peut mm-hmm. médecin bi loolu gënalu ko. Mm-hmm. parce que soo demee ba mu feeñal boppam ça veut dire que médecin bi mënul ci dara daf lay accompagner rek. Mm-hmm. mais suite logique bi léegi cirrhose ak euh, cancer bi ñu leen lay wax moom lay nekk. Euh, soxna Fatou lan nga ñu mën a wax ci politique de l'État wala prise en charge bu soxal patient yi souffrir ci hépatite. waaw man nag euh, foofu moom euh, comme ni ma koy waxee saa su nekk rek vraiment euh, ñun dañu gis ne hépatite bi dañ ñu traité en parent pauvre hépatite boo ko déggee ñu wax ko fi Sénégal rek journée mondiale moo jot te journée mondiale bi ñun si ñi sax ñi nga xam ñoo nekk ci association bi dañuy daw di si topp di si topp pour ñu wax si euh, gis nañu ne nag naam temps yi moom programme national de lutte ñu ngi def ñoom ay jéego yu mat solo parce que heure bu ma jokkee ñoom ñu ngi nekk ci région yi ñu ngi commencé ñu ngi gën a yokk seen ay formation parce que dañu war di gën a yokk euh, formation personnel médical bi ba bu ñuy communiquer ñi xam li nga xam ne moom la ñuy wax mm-hmm. Mm. parce que bu njëkk ba da ngay gis koo xamante ne du xam dara ci hépatite mais li mu xamoon ci hépatite rek mooy ku ko am da ngay cancer bu ko defee communication bi daa dee doy waar. Ah, communication dafa fii waaw ci benn affaire léegi nag ci biir loolu aussi ñàkkoon ko xam boobu tax na aussi communication bi aussi du woon dem fi mu war a dem yëpp donc état euh, vraiment euh, ñu ngi yaakaar ne jamono ji dinañ gën a wax parce que fi mu toll nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo toll ci di dese hépatite bi dëgg mooy ñi nga xamante ñoo toll seen digg jeunesse ñu nga xam ne ñoo nekk li tubaab di wax au fleur de l'âge ñooñu actuellement nii nga xamante ne ñu ngi dugg si génération avant deux mille bi ñooñu moom ñooñu war nañu dépister vraiment xool bu baax balaa affaire bi di indi loraange seen euh, biir. wax nga ko sànq dañ leen traité en parent pauvre euh, journée mondiale bi ngeen di célébrer sax contrairement aux autres journées mondiales apparemment du côté du ministère de la santé et de l'action sociale même bu dee dañ koy célébrer eh, bon xam naa ne xam ngeen ko ci seen biir dafa mel ni euh, célébration bi dafa dafa dafa xaw a timide. sa rapport à ça est-ce que euh, dafa timide wala da nga jàpp ne ils en dofuñu ci moyen bi ci wax waaw man nag wax dëgg yàlla euh, du ma def defuñu ci moyen bi ci war sax na xam xëy na peut-être mi ngi tombeek jamonoy élection yi campagne électorale yi moo tax xëy na am na ci ñenn ñi nga xam ne jot gi sax matew ko torop mais am na ci ñoo xam ne ñu ngi def sacrifice parce que am na ci vraiment yenn euh, chaîne de télévision wala mais en tout cas presse yoo xam ne ñoom ñoo lay sax fekk si mm. ut ut si la parce que dañuy bëgg nit ñi wax si li nga xamante ne moom mooy hépatite bi mm. mais loolu yëpp euh, ànd ànd moom dañu bëgg daal ñu gën a maanaam def ko farata maanaam di gën di wax hépatite bi di gën di soññ askan bi pour ñu dem defi ji dépistage bi. Euh, euh, sànq euh, ci sa discours bi yaa ngi wax da ngeen di sàkku ñu def disponibilité interféron xanaa moom mooy garab bi ngeen di gën a farataal di jël. interféron bi mooy injection. interférence yi. waaw interféron bi ñi nga xam ne ñoom ñoo am virus de l'hépatite delta ñooñu ñoom ñoo koy jël. parce que hépatite delta kenn du ko am nii moom séparément da ngay am hépatite B après virus hépatite delta bi ñëw nekk ak moom encore infection. Mm-hmm. mais ñooñu boobu ñi ko am seen faj dafa metti trop trop ba nga xamante ne comme ni ma ko waxee cher na cher gi nga xamante ne dafay doy waar donc ñun. Euh, Euh, au-delà de de de de de journée mondiale bii sax. Mm-hmm. ñun dañu bëgg rek état nu ñu jàppale. interféron boobu nan ka def comme ni nga xam ne noonu la ñu defee tenofovir bi na tenofovir bi bu demee ba daan jar ay trois cent mille. ñi dem ba ñu ñu koy defal léegi muy jar ay cinq mille francs interféron bi nga xamante ne du ñëpp koy jël parce que ñi koy jël bëri wuñu. Ah, ñi nga ne dañoo am hépatite delta tey boo jëloon par exemple population hépatite nga jël si cent personnes ñi am virus hépatite delta ay trois ak la ñuy nekk. ay trois personnes wala quatre ñoom ñooy am hépatite delta est que dina egg foofu sax mais n'empêche même bu dee benn nit kottus kese moo ko am sax dundam mu ngi ci bakk bakkanam mu si xottu gerte parce que chair na cher bi nga xam te ne ku ñu ne am nga ko te commencé nga war nga commencé traité rek sa fit dina dem mhm. waaw dina dem mhm. euh, disponibilité ay machine tamit yéen a koy sàkku waaw li nga xamante ne mooy machine fibroscan yi nag ñu ngi ñaan mu gën a bare mhm. parce que waaw parce que boo ko bëggee boole moom ak yeneen ak yeneen day daal sap saf-sap mooy li ma la wax ne boo bëggee jël bilan bi nga def ko ci ki nga xam day tibb rek ci poche am génne lu mu dee dee dee moom bu attul cent mille franc am dana fa des euh, mu mel ni kon njëgu seen njëgu traitement bi eh, yenn saa dafay nekk euh, euh, dafay dafay daf dafay cher ba ñi nga xamante ne ñoo am jàngoro bi des fois ils se retrouvent pas ndax du loolu moo tax aussi ñeneen ñi le fait que amuñu possibilité dem jënd euh, ay médicament ñuy tourner ci peut-être euh, la médecine traditionnelle aussi. waa faatu man foofu noonu surtout dama si gën a insister gën a vraiment euh, ñaan ah état président de la république na déglu suñu jooy yi mu jàppale ñu ministère de la santé ak programme national de lutte ñu ñëw taxawuñu jàpp jàppale ñu parce que fii nii ci ni programme national de lutte installé nañ fi ay laboratoire yoo xam ne dana bëgg a fexe ba nga xamante ne charge virale bi dootul cherati mm. dana yomb ci ñun kon nag comme ñoom ñi ngi def effort pour def loolu état na leen jàppale li leen manqué ba tax mënuñu koo commencé mu wax ci dox ci su ko defee askan bi gis ci seen bopp mm-hmm. euh, monsieur looy yokku ci ci ci charge virale bi et comme ni ko waxee rek sérété kii médicament yi surtout pour interféron bi. parce que mhm. comme ni ma ko waxee semaine bu nekk nga jël benn injection à cent cinquante neuf mille kooku ça peut ruiner une famille tout entière. Mhm. waaw en un laps de temps au début peut-être dinañ la mën a jàppale mais à la longue duñ ko mën a continuer. Mhm. ce qui fait que euh, su fekkee ne état bi jàpp ci. ces malades-là. on risque de les perdre. on, les, on bu jot euh, ngeen seet ñu ñu ñu ñu màggal feebar bii di hépatite at bu jot mu am thème ren mu mel ni seen thème bi wax ngeen ko sonk en anglais la mais mu mel ni loolu mooy ñu xaar bu ma juumulee euh, loolu mooy thème bi lan moo expliquer euh, choix wu thème bi. choix bi ni ma koy gisee. Mhm. mooy comme ni ma lay wax rek ne feebar bi dafa nekk feebar buy nëbbu donc comme day nëbbu dañu war a fexe nuñ koy siiwalee toujours que cela soit au niveau du malade mhm. wala du patient wala demee nañ fexe daal bay seet suñu yaram ndax jàngoro bi nekk ci wala déet. Mhm. Mhm. waaw Fatou mën nañu xaar boobu noonu li muy tekki mooy feebar bi gannaaw xam nañu ne moom daa saay saay saay saay bi nga xamante ne bu commencé fisal boppam ça veut dire moom ndeysaan togg na ba def musibaam ba pare comme loolu la ñun mënuñu xaar loolu. ñun li ñu bëgg mooy nit ñi nañ jóg dem defe ji dépistage bi avant que muy àgg si ñoom fenn ñi nga xam dañu am aussi seen ay patients mu nekk ak ñoom ci biir kër gi ñu toog di xaar état bi muy muy bàyyi loolu séeraay beeg yooyu noonu ba tax nit ñi duñu xam dañuy du ñu dem mm. na état wax ba nga xamante ne day yomb ci ñoom ñu mën a gaaw dem faj ji seen patient yi parce que nag Sénégal pays pauvre la de te yenn yi moom ñu bëri dañuy am feebar bi naam xam nañ ne feebar bi buñ ko toppatoowul da leen di rey dañuy toog di xoole ba indi ba mu indi leen ay loraange ndax wax dëgg yàlla ko am jafe-jafe def bii booy dugal ci sa biir gémmiñ bi wax dëgg yàlla ba faj sa yaram moom kenn waxaale wu ko. ndax association bi dafay liggéey en partenariat avec euh, les autorités en charge de la santé lu ci mel ni le programme wala ministère euh, pour yenn saa ñu xaw leen booster dooleel leen. waaw soo seetluwee Fatou pour cette année ci gis nga ni nga xamante ne noonu noonu la ñu nekkee ak programme national de lutte contre contre les hépatites donc ñu ngi gërëm foofu professeur Aminata Sall jaalo parce que tendre nañu la main taxaw na itamit incha allahu rabbi pour jàppale ñu euh, bu baax ba nga xamante ne képp koo xamante ne rek patient wu hépatite B nga di ci gis sa bopp euh, donc ñi nga xamante ne ñoom lañ gën di lëkkaloo ñu ñuy gën di jàppale nag ñun moom mooy projet CNB euh, bi nga xamante ne hôpital Fann la nekk mm-hmm. ah ki nga xamante ne moom moo jiitee foofu muy chef de service des maladies infectieuses muy le professeur Moussa Seydi aussi dañ koy gërëm ndax moom nekk na ko nga xamante ne man damay am saw sax wax ak moom nii téléphone damay damay ne rek xaaral ma bind ko message rek envoyé ko mais moom am na disponibilité gu day na dafay jël buy gis sa message rek moom day jël téléphone am daal di lay woo lépp loo xamante ne moom gis na ko ci si sa wàllu communication sur les hépatites wala mu gis ko ci sa wàllu euh, maanaam patient boo xam ne bëgg nga ko dimbali wala daal dangay gis moom vraiment mu dox ci jéego yi am solo euh, di gërëm nag ki nga xamante ne moom mooy docteur moom mooy professeur docteur Gilles Wengler bi nga xamante ne moom moo euh, kay initié projet CNB bi moom Suisse la nekk mm-hmm. mais ki nga xam ne moo ko fi teewal moom mooy docteur Adria moom ak ñoom docteur Tine hum ak euh, seen euh, staff ah di di nuyu nag sama secrétaire boobu Amady ah vraiment madame Sarr ku ñu jàppale la di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi si biir programme seen bi ñoom ñu ngi ñuy jàppale vraiment bu dëgër a dëgër macha allah. Euh, bëccëg bi eh, naka ngeen ko fas yéenee màggal ren sànq yaa ngi koy wax Covid bi dafa bloqué seen activité yu bëri bëri bëri bëri bëccëg bi naka ngeen ko fas yéenee màggale. waaw Fatou bëccëg bi dañoo amoon yéene wu def ay randonnée pédestre. def ay dépistage gratuit vraiment def ay campagne de sensibilisation euh, malheureusement comme ni nga ko waxee Covid bi tax na mayuñu pour ñu mun ko dem def noonu mhm. mais aussi campagne bi nga xamante ne mooy législative yi empêché nañu ko ah en plus de sa aussi nawet la ñu nekk mu nekk benn inconfort boo xamante ne bugguñu aussi tamit sonnal ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu si wàllu hépatite bi mhm. mais li nga xamante ne nag ñun bëggoon nañ ko ñun mooy te li nga xamante ne moom la ñu fas yéenaa def moom mooy un point de presse ci biir point de presse bi vraiment bëgg ci vraiment avoir une pensée pieuse ah ak a ci maanaam fàttaliku ci ñaar ñoo xamante ne wàññeeku nañu si ñun ah kenn ki daaw la wàññeeku ñu koy wax Alioune Sène moom moo yore woon moom moo nekkoon chargé de communication bi moom moo ne doon jàppale di depuis association bi ñu créé ko lépp loo xamante ne ay flyers yu ñu doon def la wala communication bi ñu doon def sur les hépatites moom Alioune sen moo ji ci doon jàppale mm-hmm. euh, moom moo ñu doon faciliter aussi partenariat ak li nga xamante ne mooy Corps Africa mm-hmm. euh, ñàkkaat keneen aussi ci diggante bi boobaak léegi ci ñetti weer ak ay fan lay toll muy ki ñuy wax Pape Ibrahima Sow Pape Ibrahima Sow euh, ba ñuy mujjee toog fii euh, man ak moom ñoo jàkkaarloo woon ci émission bi mhm. donc Pape Ibrahima Sow aussi ñu ñàkk ko ci ñàkk bu gaaw ci bu ñu bett aussi euh, vraiment mu nekkoon koo xam ne dafa disponible woon mhm. koo xamante ne soo ko musaan wax ci lu jëm ci association bi moom poche am la ko daan jëlewee moom Pape Sow boo ko musaan wax ne que bindal demande bi nga liiwal ma ko Pape Sow euh, demande bi bu la koy kiiwal sax en couleur la la koy imprimer pour wan la ni la maanaam ni mu bëggoon ci liggéey bu set ak liggéey boo xamante ne boo am Pastef euh, euh, li mu doon def te si doon wane Pastef mhm. ah, donc ci biir loolu sax dama ci daal di profiter mhm. remercier ki nga xamante ne moom mooy sous-préfet Djibi Diallo parce que nag nekk na koo xamante ne jokkoon nañ ci lu bare ci li nga xamante ne moom mooy feebaru Pape Ibrahima Sow bi nga xam ne moo ko yóbbu def na ci kem kartanam yóbbu nañ ko bitim réew ñëw mais yàlla suñu borom moom mooy dogal comme niñ ko waxee rek jam ak pexeem yàlla ak dogalam. Mhm. d'accord monsieur Sène euh, bëccëg bi eh, Fatou Guirane wax na ko dañu waroon prévoir randonnée pédestre a geneen activité mais man dama la bëgg a laajaat rek ci benn aspect muy aspect sensibilisation tey yéen ci sensibiliser mais dafa mel ni ba léegi le retour dafa dafa xaw des boo doon envisager benn stratégie de communication ngir gën a mettre l'accent sur la sensibilisation par exemple euh, lan nga ñu ci mën a wax peut-être ay série de théâtre par rapport ak seen groupe yi organiser des ay manifestations yoo xamante ne vraiment retour bi dina tax ba euh, nit yi génne yenn idées figées yi quand je parle d'idées figées c'est par rapport ak euh, transmission wu hépatite bi parce que Euh, stigmatisation bi mu ngi ci bopp di di tey boo doon proposer beneen stratégie de communication justement pour balayer tout ça lan nga lan nga xalaat ne bu ngeen ko defoon peut-être euh, croyance yooyu dina xaw a reculer. waaw ah, je vous remercie maa ngi lay remercier bu baax euh, Fatou. Mhm. mais li ma gën a yaakaar mooy vecteur bi nga xam ne moo gën a baax daal pour sensibilisation yi. Mhm. mooy ñu jéem a ñëw vers la presse. Mhm. cela soit la presse écrite wala euh, parler wala leneen mhm. parce que je crois que moom moo gën a moo ëpp daal kii waaw moo gën a gaaw te euh, ñi ñi mu jot cible bi. bi day gën a large daal. Mm-hmm. man daal suñu amoon lu ñu gën a loolu moo ñu moo tax nag maa ngi ci profité. Mm-hmm. pour di la remercier di remercier tamit réew mi. FM mm-hmm. parce que di ngeen ñu permettre ñu am un peu plus de visibilité. su dul dara sax nit ñi dinañu dégg et à travers exemple yi ñu fi jot a joxe comme témoignage. dina servir non seulement le le malade. mais son environnement immédiat c'est-à-dire la famille xam ne feebar bi niñ ko yaakaaree du loolu. Mhm. waaw problème de communication rek la mais feebar bi moog si biiru ñoo yem. su fekkee ne yaa ngi faju daal yaag ñëpp a yem. Mhm. Euh, euh, Fatou lan ngeen euh, fas yéene bu ngeen xam ne bu ngeen ko tëralee xëy a di ngeen ama benn retour bu bu bu favorable. waaw faatu man li nga wax sànq dafa fekk loolu dama ko yàgg di wax. Mhm. dama xam ne ministère de la santé bu ñuy def ci problème Covid bi. wane nañu def nañ ay mandarga wane nañ ci télé bi ku waaw affiche yeeg foo tourné yaa ngi gis ñi ngi wane raxasu bi ñi ngi wane saabu bi ñi ngi wane masque bi ñi ngi wane leneen ak leneen donc balaa euh, journaliste yi yeeg média yi di di di ñëw dafa am leneen li nga xam ne moo ko jiitu dañ ko war a def de petit sketch parce que VIH ay mm-hmm. temps noonu lañ ko doon def di wane mode de transmission yi nan la ko nit mën a mooy toog yeneen pourquoi mënuñu ko def ak l'hépatite wane ne nit ki hépatite bi lii la jaar ndox la buy rogalaat soo ko téyeewul day egg fii ak fii wane ko su ko defee bu boobaa nag si la presse di door a mën a jëlee médiatiser ko nag bu ko defee ñëpp mun ci jot parce que buñ ko defoon ay sketch def ko comme ni ñuy jouer ay yenn série yi ci mhm. tele yi buñ ko defoon rek parce que sénégalais moom loo jouer ci ci ci ci ci ci sketch teg ko ci télé bi rek ñu seetaan ko mhm. kon buñ ko defoon ba tey sensibilisation bi dox na wër na Sénégal ba xale tuut tuutaani sax dinañ ko xam mhm. loolu doon na am solo bu am solo voilà Mm-hmm. d' accord mu mel ni waxtaan bi am na solo mais lu ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ sa euh, euh, faatu Nguirane. waaw de di kontaanaat rek faatu si mm-hmm. invitation bi ndax yow moom vraiment ku am Pastef lool ci ci hépatite bi nga euh, di remercier nag balaa loolu sama groupe. ah sama membre de groupe yi nga xamante ne euh, vraiment euh, ñu ngi ñu ngi dundal li nga xamante ne moom mooy association bi ah, vraiment euh, ñu ngi tax ah, ñuy ñeme di génn parce que tey yow boo demoon tey ji ba bëgg ne man sax sonn wala dara boo xoolee si si si patient yi rek sax xol dootu la mayati ngay delluwaat ginnaaw maa ngi leen di gërëm di leen ñaana waaye di jiital ci gërëm bi ki nga xamante ne mooy président d'honneur monsieur Ibrahima Gueye bi nga xamante ne tey su ma sañ taxaw di wax tey daanaka mun naa moo nekk sama professeur moom moo ma formé euh, di remercier euh, professeur Moussa di ci disponibilité moom ak équipe équipe am yëpp euh, di remercier aussi programme national de lutte contre les hépatites en l'occurrence professeur Aminata Sall Diallo dama koy remercier bu baax waaye di remercier aussi docteur Bokar Sarr moom mi nga xamante ne moom docteur Yacine heure bu ma ñëwee fii ci programme bi fii laay yendoog ñoom di leen bëgga a ak wax te ñu ànd ak ñoo xamante ne ñu la ñoo xamante ne dañ ñuy ah. dañuy bàyyi ñu wax wax ñu expliquer ñu lépp lu nga xamante ne moom moo si nekk mhm. donc man maa ngi leen di remercier bu baax vraiment euh, di remercier aussi ministère de la santé di féliciter madame Marie Khemesse Ngom Ndiaye mhm. moom mi nga xamante ne moom la fi yàlla teg ñuy ñaan nag euh, ni mu fi ñëwee nekk fi gan ñun yi tamit yàlla nañu gis ay nouveauté ci li nga xamante ne mooy ay avancées si wàllu hépatite B euh, vraiment di ñaanalaat ñi nga xamante ne ñooy suñu way dawlo yi di ñaan yàlla suñu borom yàlla na leen yërëm yàlla xaare leen jannatul firdawsi di gërëm aussi képp boo xamante ne rek yaa ngi doon déglu réew mi FM mhm. d'accord seen euh, Sène euh, li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ci xanaa rek nga wax sa kàddu gu mujj boo amee plaidoyer wala benn cri de cœur euh, booy lancé lan lañ ci mën a xaar sant leen rek sant leen leen di sant maa ngi sant réew mi FM mhm. ci taxaw gi mu ñu di sant aussi programme mhm. ci jàppale bi ñu jàppale surtout sur le plan financier parce que comme ni ma la waxoon rek. Mhm. tenofovir bi ça nous revenait à trois cent vingt cinq mille francs te depuis deux mille huit à cinq mille francs la ñu revenir mhm. kooku jar sant mënutoon rek. wee weesu loolu. gannaaw loolu aussi maa ngi sant groupe WhatsApp bi. Mhm. ci sensibilisation bi ñu def ba tax patients yi di ñeme di ñëw weer nu parce ñun loolu moo ñu gënal patients yi ñëw weer ñu mun di. weccante xalaat pour que euh, feebar bi niñ ko stigmatiser wàññeeku bu baax a baax mm-hmm. ñu ngi leen di sant bu sant yam nag mm-hmm. Euh, sant leen gërëm leen euh, moom Medoune Sène nekk vice-président bu association Saafara hépatite Sénégal waaye tamit sant ko bu baax a baax moom Fatou Ngirane ci disponibilité bi ak oyof bi ma fàttali ne Fatou Ngirane moom mooy président wu association wu euh, Saafara hépatite Sénégal sant leen gërëm leen yeen bokk auditeurs yi ginnaaw 18h ba mu noppee ba léegi yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité wala tamit ak yeneen invité